naqar ak tiis xanaa suñ dëkkandoo bi doon liggéey ci magasin bi mu nekkoon ku baax koo xam ne liggéey lañ ko xamee woon nit ko joxoon ñëpp cër Modou Faye la tudd comme fii conteneur yi gars yi dañuy wàccee ay bagages ah, benn loola woon boo xam ne war na mën a peser ay 500 kilos yoo xam ne gars yi dañ ko doon jéem a wàccee par la suite si la ko si la ko dalee moo causé Euh, décédé bi waaw fii moom wax fa dëgg yàlla ñàkk na kaaraange ñàkk na sécurité parce que conteneur yi ñu ngi taxaw si rebooru tali bi amuñu benn trottoir boo xamante ni mën nañ si dox vraiment loolu causé nañu ay problèmes yoo xamante ni dem ak dikk bi dina ko dina ko dina ko jàngal waaw mairie ji da kaw moom li ma leen di wax mooy population bi soxla nañ leen lool seen absence dañ ko gis trop dangeen ñu manqué ci ci côté yëpp te loolu du yoon si assainissement beeg lépp dafa des Oui, aujourd'hui, on est tous tristes parce que, à cause de la mort de Modou Faye. était un gars, vraiment un travailleur, quelqu'un qui est vraiment très sérieux. Il descendait des bagages sur les conteneurs comme c'est leur travail. Les bagages sont, sont tombés sur lui, il est décédé sur le sang. c'est quelque chose de très dur, c'est très triste. Oui, nous avons, nous avons rencontré beaucoup de problèmes parce que les conteneurs nous, nous, nous causaient d'avoir de, des sécurités. C'est déplorant. Oui, je lance un message, euh, le monsieur le maire Je suis vraiment choqué. Je leur euh, lance un appel pour le travail et pour, pour l'assainissement aussi et pour la sécurité surtout parce que les conteneurs nous empêchent même de sortir à l'aise ces quartiers euh, Touba Pékin.